ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaaj ci seen jàngatu bés bi tey dañu ñëw ci mbir moo xam ni ñu bari interpellé nañu ci fan yi yëpp muy livre bi Cheikh Yérim Seck bind mu war a doon également benn film documentaire bu yaatu te mu dippee ko Macky Sall face à l'histoire Macky ci kanamu taarix li ñu seetlu nag mooy ñi ñuy laaj ñëpp ngir ñu wax ci livre bi jàngatal leen ko ñaari catégorie doomi aadama lañ bi ci njëkk mooy ñi nga xam ni Cheikh Yérim wax na lu leen neex lool mbaa lu leen arrangé ci téere bi bëgg nag ku leen ko dëggalal ci benn analyse walla commentaire ñaareel bi mooy ñi nga xam ni Cheikh Yérim Seck wax na lu leen neexul mbaa lu lëndëmal seen bopp mbaa jaxase seeni xel te bëgg ku leen ci indil ay leeral léegi nag pour bañ a décevoir mbaa tas yaakaaru kenn balaa ñuy xuus ci video bi dañ leen di xamal ni liiruñu livre bi Cheikh Yérim Seck bind te bu ngeen ñu mayee nopp ñu wax leen lan moo tax ak lan moo ko waral sukkandiku nag ci ay fee ay jëf yoo xam ni buñ ci jógee yaakaar nañ ni kenn ku nekk ci ñun dina ci jaare xam bu baax catégorie ñii di woowee seen bopp ay journaliste d'investigation ñan ñoo ci wax te yàlla rek tax ak Sénégal ak ñan ñoo ci jëfandikoo seen xalima mbaa seen kàddu di ko monee di ci dil ak ay yàqay doomi aadama pour seeni propre intérêt lu tax liiruñu livre Cheikh Yérim Seck bii mooy yàlla moo ñu ne yéen aji ngëm yi bu leen ab saay-saay nasaraan naan ko perweer indi ab xibaar def leen ci ndànk gëstu leen ko lii dinañu ko sant kon balaa ñuy liir livre boo xam ne nee nañ dañ ci joxe ay xibaar yu concerné réew mi di ci perte ay heures de lecture yoo xam ne dootoo ko rattrapé sa giiru dund nañu gëstu d'abord ki bind mooy kan ndax crédible na wala ndax ku ñu war a gëm la ci kàddu ba tey waxaguñ ni Cheikh Yérim Seck pervers la donte defoon nañ wala waxoon nañ ci vidéo du benn yoon du ñaari yoon ci doxalinu Cheikh Yérim Seck maanaam ni muy jëfandikoo lii di journalisme pour di ci business boobu livre ñëwagul dara xewagul bi ci mujj te ñu defoon ci vidéo spéciale 18 décembre 2021 mooy bi ànd sàmm jikko yi dafay proposition de loi ngir criminaliser wàllum ngóor jigéen ci senegal Cheikh Yérim Seck en tant que de la plume ku ñuy fay alal ju bare bari ngir muy bind mbaa di wax dafa jëloon position di défendre lobby góor jigéen yi donc ñun par principe ngëm-ngëm en tant que ñuy xeex borom ñaari tur yi te nëbbuñ ko jomb nañu jël suñu xaalis di ko jëndee livre koo xam ni dafay défendre góor jigéen yi ngir koom mbiru alalu àdduna daañu nag wax ci moom Cheikh Yérim Seck ngir sénégalais yi nga xam ne dañoo yomb nax

di fent lu la wóorul mbaa sax lu ñëwagul di dugg ci xelu doomi aadama. livre politique yi ëpp doole ci àdduna bi dans la tête la la tudd. maanaam nga toog nga comment aussi Yérim je sa géntu morom. non non non non dans la tête de exercice journalistique bi. Mm-hmm. je sais mais je veux mm. maanaam nga toog jàkkaarloog Macky Sall nga toog. nga ne lan la Macky Sall di xalaat. Mm. mais journaliste politique yi gën a boo bëggee jël dans la tête de ba ko def une règle universelle du journalisme. Mm-hmm. ça exercice la du règle. exercice la donc ñi fi nekk di coow fan yii yëpp wala am mbetteel ci Cheikh Yérim Seck xëy na dañoo gaaw fàtte. atum 2020 bii la Cheikh Yérim Seck créé benn xeetu tasum xibaar bu bees tuddee ko dans la tête nekk ci xel diw lii lañu naan tàppale journalistique maanaam léegi dootu sukkandiku ci ay fee ay jëf mais li la sa xel may ak li nga njort ngay wax ci lii nag la Cheikh Yérim Seck nekk te loolu dellu na ko dëggal daaw jéeg en février 2021 gannaaw ba coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr jibee ndax ñëpp dañoo xëyoon rek dégg ni am na xale bu jigéen bu porte woon plainte Ousmane Sonko waaye xamuñu woon xale bu jigéen boobee mooy kan nu mel naka la bindoo léegi Cheikh Yérim Seck jamono yooyu ci ñeme yàllaam ak xeetu journalisme bu bees bi mu créé di béeku dans la tête nekk ci xel diw jël benn photo xale bu jigéen publier ko ci blogam bu ñu naan Post ne kii mooy ndaw si porté plainte Ousmane Sonko. ndeke benn photo actrice ghanéenne bu naan Jackie Appiah di joué ci ay filmu Nollywood la Cheikh Yérim Seck jël ne ñu kii mooy aji saar mu dem ba ci biir gannaaw fausse information bu rëy bii mu joxe xam ni amatul crédibilité pour wax ci dossier bii mu dellu ginnaaw ne coow li sax ku dul saar Sarr ak Ousmane ko xamoon nu mu demee maanaam na ci doomi aadama yi maandu. ak euh, accusation bi nga xam ne moo lay toppee Ousmane Sonko ay la yéwén nag ku dul Ousmane Sonko ak ndaw soosu ak yàlla bi ñu bind xamu ci dara dañoo keneen ku ci wax dara dangaa wax lu la neex rek waaw dangaa wax li nga xalaat rek mais nag aaya ji alxuraan ne wa ma shahidna illa bi ma naa nit il faut aussi ngay seede loo xam tu comprends nit ñi war nañu am maandu teeg aussi toog nag Euh, déglu xool ki nga xam ne mooy àtte man jàpp naa ne ku dul yàlla ak aji Sarr ak Ousmane Sonko noo xamoo ci dara wala boog loo ci xam rek dañ la ko wax. Hmm. il faut il faut dire la ko waxee est-ce que li la wax moo conforme ak li am. lii mi ngi ko wax mars 2021 ci émission Faram fàcce ci même émission boobu la Cheikh Yérim Seck delluwaat lu yàggaatul dara. ni dossier bi lim ci xam kenn xamu ko ci. ok pourtant bi maa xam nga ni kenn gënu ma koo xam Ousmane Sonko Adji Sarr kenn gënu ma koo xam ci Sénégal kenn. mais Cheikh yow mën nga mën nga bàkku ci non non dama ko dama ko xam. non non kenn gënu ma koo xam xoolal dossier bi dossier bi ah. waaw kenn gënu ma koo xam mais duma ci wax. donc kii mooy Cheikh Yérim bu doon ni dafay wax lu dul dëgg boole ci tuuti kersa am suñu complexe. amaana sax mu am luñ koy rusee mais Cheikh Yérim Seck dafay nar sans gêne nekk à l'aise du cam benn rusukaay di la xool ci bët te wóor na ko ni li muy wax lu dëgg te lii bokk na ci li gën garaaw ndax facilement mën ngaa nax ñi seen bopp woyof wala ñi nga xam ni amuñu woon esprit di ceytu ak a càmbar discours. feneen fu ñu bëgg a taxaw mooy kañ la Cheikh Yérim Seck génnee livre am bii. mooy ci veillu élection présidentielle yu 2024 parce que ñëpp xam nañ ni 2023 bi année campagne électorale yu tar lay doon ndax ci la sénégalais yi di xamagum wala boog di njortu kan la ñu yóbbu palais en 2024 donc lu yenn politiciens yi rawatina waa pouvoir mën ci occuper médias yi def propagande fent ay mbir ngir tuumaal wala écarter ay candidat mbaa ñàkk leen solo ci bëtu sénégalais yi dañ ko def. te ci guerre médiatique bii mercenaires yu ci mel ni Cheikh Yérim Seck seeni mbir daf ciy dox lool ndax yàlla may na leen ñu mën a bind ba noppi mën a wax muy lu jafe ci journaliste donte nag seen mën bind ak seen mën wax jooje yépp ci caay-caay dong lañ koy jëfandikoo mais pas pour luy jariñ Sénégal donc il faut que ñu jàngat ci ban waxtu la Cheikh Yérim génn ca gàddaay gi mu ne woon mooy période bi nga xam ni. ñoo ngi waajal 2024 maanaam élection présidentielle moment wu élection yi mercenaires de la plume yi di duufale seeni poche ku ne di wut ay prime te lii du suñuy kàddu Cheikh Yérim Seck ci boppam moo ñu xamal ni bu ñuy waajal ay jongante ay autorités yu féete ci pouvoir bi d'ailleurs lim na ci ku ci mel ni Amadou Ba ki nga xam ni jamono ji moom lay liggéeyal ñoo leen di woo ne leen jàpp leen ci maanaam pour ñuy bind wala di wax pour benn camp gagné mais Sénégal dafa tuuti yow patron de presse na est-ce que Amadou Ba waxul pour nga jàpp ci wala dara en tout cas ñi ko seqal ñëpp. bu dugal Cheikh Yérim. waaw ñi mu ko seqal man de man bokk. man bokk voilà nekkuñu fii pour jàppale. man woo na ma ni ma. booy ma ne ah, mun ma vraiment suñu candidat bi lépp loo mën ci wane campagne def ko parce que dañoo bëgg mu gañe da nga wax bi xeetu propagande médiatique yi Cheikh Yérim Seck di wax nag li sénégalais war a xam mooy du lu gratuit. li wolof naan mag du fecc ci yàlla naa dee ay milliards wala ay centaines de millions la pouvoir bi di génnee boole ko ci seeni budget de communication et de campagne di ko jox ay patron de presse wala ay mercenaires yu ci mel ni Cheikh Yérim Seck mii ci lii la Cheikh Yérim di dundu te du tay la ko tàmbali. en 2019 bi ñuy waajal élection présidentielle ñaari weer des ci Cheikh Yérim Seck moo publié woon ci blogam bii di Yérim Post ne Ousmane Sonko dafa am ay lënkaloo yu dangereuse yu dox digganteem ak waa Tullow Oil benn entreprise bu nekk Londres te yëngu ci wàllum pétrole ak gaz. Cheikh Yérim Seck ay faux documents def ci logoom ak lépp ne Sonko ñii la fas yéene tayle pétrole ak gaz bu senegal ba xaatim nañ ay contrat ba noppi jël réew mi moo ko tee jaay suñu moomeel. bi ko wax Tullow Oil yëgee. ci lañ publier ci seen page Twitter le 11 janvier 2019 ne mosuñoo sekk ak Ousmane Sonko ay payoor ne document yi ñu fësal wérul c'est du faux signé ko rax ci dolli anglais yi ñu ko bindee ay anglais njalaxaan la ñu ne seen entreprise amul bureau Sénégal wala ab ndaw bu leen fa teewal massa mag di fa am ay licence te itam ñoom mosuñoo jàppale kenn ci wàllum politique gannaaw gi. Cheikh Yérim Seck baaluwul àq sénégalais yi jéggaluwul ñu koy suivre ci nar yu tooy xepp yi mu fësal ci veillu élection présidentielle moment yi sénégalais yi war a tànn seen ëllëgu réew ak ci yan loxo lañ koy teg dafa saale yëf yi daal di koy maasaale tourner la page soppaliku nag doon ustaas toog ci plateau télévision yi di waaraate jëm ci mbugalu xotti war ma doomi aadama ci pénc ak ñàkk sutura gi am ci réew mi li wuteeg moom li muy dund. ñenn fii sax am na ñoo xam ne am nañu contentieux ak yàlla wàllu yi dañuy tooñ yàlla mais ki nga xam ne même bu fekkee ne mi ngi tooñ yàlla moom au moins des fois mu wax loo xam ne nii sama maas bu sàggan ki ñu ngi ciy jàng dara ci diine boo ñëwee yàq seen der ba man mi sama maas gi sa découragé ci ñooñu découragé ci diine ji léegi yow lan ngay yokk lan ngay yokk lan ngay yokk vraiment lan ngay yokk. parce que xam nga Sénégal et puis man lan moo ma jaaxal c'est l'un des rares pays au monde boo xam ne nit day xëy suba ba ngoon di lijjanti kan mooy tëdd ak kan. sa à loolu loolu vraiment pour man problème su. non non c'est-à-dire nit nit société bu développé société bu développé. société bu développé nit ñi dañoo war a dépasser kan mooy tëdd ak kan diggante góor ak jigéen il faut nit ñi am esprit gentleman ku ne yaa ngi def loo xam ne nii ñaanoo yàlla mu feeñ bu ñu kenn damm fii kenn mënu fi jox leçon kenn nañu arrêté je ne conçois nga tàpp benn nit pendant des semaines lu de nga wax ko ci moom mais pour lan pour lan fii képp ku yàlla xëyoon suba weer ni weeri mbalaan mi mu la suturaal am na ñu lay nuyu ñoo xam ne dootuñu la nuyu donc dañu suturaalante dëkk bii nañu nañu dal nañu yem donc kàddu yi yaakaar nañu jarul sax commentaire firnde la ci hypocrisie naafequ Cheikh Yérim Seck maanaam lu mu wax yeggul ci xol bi ci discours layam même jëmm ji toogoon ci plateau télévision en janvier 2022 di ñaawlu aka waar jaam yi ci ñàkk sutura ak di weer doomi aadama ci li muy def digganteem ak yàlla kenn fekkewul en janvier 2023 moo génne ab livre créé benn histoire ni opposant bi mu tuumaaloon en 2019 ci affaire Tullow Oil ba gannaaw gi yàlla leeral lépp tey mu ne opposant boobu noonu dafa doon sekk ku jigéen ba Macky sàll yëg ko bàyyi mu sedd bind ko cab téere loo xam ne du nax saay abadan ay génération ki génération dañuy ñëw di ko liir donc éléments yi ñu leen won ci Cheikh Yérim Seck te mënoon nañ leen joxaat yeneen ak yeneen yu bare bari moo tax ñu ne leen amuñu temps wu di jënd massamaak di liir livre koo xam ni yàlla du ko boole ci les pervers saay-saay yi nga xam ni bu la indilee xibaar boo ci mënul màndu gëstu ko ba noppi ndax seeni pexe jubul ñi gën a yées ci jaam yi lañ bokk kon Daxansole bi tey loolu woon ñu leen gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jàngin jëf